marché central bu Ziguinchor li nga xamante ni nii nag moo tax ñu daje fi tey marché bi yëpp ñëw fii tey jii mooy jafe-jafe yoo xamante ni nii waa marché bi am nañ ko ku ne xam na ni marché Ziguinchor bu centrale bii di marché bu kot le 5 décembre dafa tàkkoon tàkk gu métti ñu am jafe-jafe courant yu méttee méttee méttee méttee tey marché bi bu ñu sañoon dañ naan amuñu courant commerçant yi amuñu courant ci biir ak ci biti mu metti lool bi loolu amee ci bis bi lakk gi amee comme dafa laaj ñu leeral opinion publique bi nationale et internationale ndax tey ku ñëw ci waa dëkk bi di dugg si boo ñëwee fekk marché bu ko lëndëm këruus jaaykati yàpp yi nekk ci biir jaaykati ganaar yi nekk ci biir jaaykati jën yi nekk ci biir te courant amul te ku ne xam na ni marché bi li fi nekk ëpp na 400 cantines yoo xam ni ku ci nekk ci sa biir cantine boo solee mbubu mu xonq sax bu courant amul bi nit bu nit ñëwee bu taxawee du xam ba xam mbubu mi nga sol couleur bu mu am kon xam nañ ni mënuñu dem sans courant mu metti nag ba àgg ci lool ci commerçant yi tey jii li jaadu woon mooy bu ñu demee ba toogaat tey genn wàllu marché bi daan am courant genn wàllu bi du am ñu dem ba tey ñu toog ñetti fan marché bi ci biir ak ci biti luy nuroog courant amu fi te commerçant yi ci waxtu lu ñu war a fay rek ak lu ñu séq ak maire yi ñi ngi koy def bu dee juuti ñi ngi koy def bu dee patante fay nañ ko te kenn déggu leen malgré tout ça suñu marché lakk na bu dee weer nit ñi ñi ngi fay seeni cantine ni ñu ko war a fay bu ko defee nag lu mel nii li nga xam ni moom la maire yi warloo ak commerçant yi tey bu ñu mënee liggéey war a liggéey ci courant ak lu mën a xew bu ñu amul courant ak lu mu laaj ñu war koo indi seen responsabilité la ñu war koo def bi nga xamante ni lakk gi am na ñoom bi ñu demee ñu toog ak ñoom defak ñoom réunion ci jour bi mag lakk gi amee keroog bi ñu leen laajee problème courant bi dañu ñu ñu ci fin budget 23 bi la ñu nekk vingt 2024 bi ñëwagul kon fii ak mois ci la ñuy doog a mën am xaalis pour mën a defar affaire courant bi ñu ni leen baax na ñu ñëw ñun commerçant yi ci suñu biir ñoo tegante suñuy loxo ba am plus de 1 million 360 et quelques mille ñu engagé woo technicien bi nga xamante ni nii mooy technicien bi yor affaire courant ci mairie di monsieur arfamaane Mané mu ñëw mu defal ñu main d'œuvre cent cinquante mille ñu demaat ba ci biir mu yokk ci quatre-vingt mille mu defal ñu li nga xamante ni moom la war a jënd ci ay matériel mu toll ci huit cent et quelques mille ñun commerçant yi comme lu nu këttu lu ñu jonn te ci feet lañ nekk ñu engagé jël suñu xaalis boobu jox ko ko pour mu defaral ñu ñu def ci dem ba àgg ci lu ëpp un million six cent et quelques mille ñu wëlbatiku courant bi dekete dafa am ay kaabul yu mag yoo xamante ni ku xam marché bu kot ni mu bindoo nga xam ni bu demee ba lakk gu toll nii am fi mbir mi doonatul lu complexe ñu dem ba lañ defaroon lépp dem wëlbatiku tàbbi ci ndox mi ñu delluwaat mairie wax leen ni leen ñun bi ngeen ñu mënu leen te yéen a war a def te yéen ngeen nangu ni yéen a war a def d'accord ni yéen a war a def te yéen a war a def ak lu mën a xew yéen a war a def ndax bu ngeen nee ñun mënuñoo def ndax xaalis amagu fi fii ak 4 mois réponse bi moo doonoon commerçant yi taxaw ni leen kon fii ak 4 mois lépp lu daan jóge ci ñun di dem ci yéen na taxaw loolu itam ba 4 mois ngeen indil ñu suñu courant ñun tam ñu dem ak yéen ci li nga xamante ni mooy li ñu liyee ak yéen. muy tax yi leen war a fay mais àgguñu ci loolu pour rafetal ndax xam nañ contexte bi ñu nekk. bi ñu demee ba toog. ci semaine bële passé la adjoint au maire Bassirou Koli ni dégagé nañ budget bu toll ci un million cinq cent et quelques mille pour courant wu marché bu kot dañu toog ñun ñi nga xam ne ñooy responsable marché yi commerçant yi ak commerçante yi di ñëw ni ñu mairie nee nañ jox nañ leen un million cinq cent mille pour que ngeen defar courant wu marché bi tey te ba tey ñun mënuñu gis courant biñ demee interpellé par la voix di président Ali Cissé mi mu dem laaj leen mu ni waxuñu ni jox nañ leen xaalis bi mais dégagé nañ ko léegi rek fi nga xamante ni fi lañ ci tollu tey li nga xamante ni moom la ñuy wax opinion nationale bi ak opinion internationale bi di ko wax commune bu Ziguinchor mooy ñun seeni partenaire lañ buñ demee ba nekk ci jafe-jafe bu toll nii marché bu toll nii lakk le président de la république génne somme bu toll ci cinquante millions ak dix ceeb ñëw dimbalee ko sinistré yi mu am ay bâtiment yu yàqu lañ dimbalee woon ña seen i bâtiment woon ñu jël xaalis boobu tabaxewaat ko seeni i te ku ne xam na ni mairie la waroon ñu ku ñu ni courant ñoom mënuñu ci dara commerçant yi di tegante seeni dërëm ak ñaar dërëm ba def ci un million six cent et quelques mille bëgg nañ la mairie de Ziguinchor moom itam mu jël sacrifice bu mu laaj ñu def ko mën a fexe ba wàccoo ak ñun ndax boo xoolee fii tey dëkk bi bii Ziguinchor tey yéen journaliste yii fi taxaw ku ci jaar ci tali bii li nga seen fii muy ndox muy rogalaat di dem ndoxu foos la boo xamante nii ci biir duusu marché bu kot bi foofa lay jóge loolu itam bu ngeen xoolee lu mat huit mois ba sept mois commerçant yi ñu ngi koy jooy ba tey amuñu ci saafara boo demee tey jii tu ci douche bi nga xamante ni moo nekk biir marché bu kot boo fa duggoon tey jii yow ku ñu fa dugal yéen journalistes yi bu ñu leen ko wanee liggéey ni njëkk a laaj seen bopp mooy nan la commerçant yi mën a dundee lu mel nii ak la mairie de Ziguinchor ba pare te kenn déggu leen parce que ay nit ñu sagesse lañ ay nit ñu sage lañ ay nit ñu yiw lañ ay nit ñu neex a àndal lañ waaye nag waaye nag waaye nag lu ëpp tuuru suñuy partenaire lañ waaye nañu def seen na ñu def seen wareef lii ñu leen may lu ko gën a néew Abdoulaye Balde seq naa ak ñoom teraanga jure waaye lu ko gën a néew bu ñu ko musee def fekke ngeen fii ñu taxaw ni ko du ñu fay juuti du ñu fay ay patente du ñu fay ay nangam ak nangam kon ñoom itam nañu jël autour nañu jë jël autour ñu ànd ak ñun àndum nawle ñu respectente ñun li ñu war ci suñu diggante ak ñoom ñi ngi koy def te dawuñu ci dara manqué wuñ ci benn yoon ñoom itam li leen war nañu koy def ba mat